قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتى

turu acteur politique bi ma doon yàlla boole moom ci li ñu tuddee assise nationale ma amoon ci jël bu njëkk en tant que syndicaliste waaye dellu si waat fekk ko biir këram mooy la pour signer waat charte boobu en tant que président de parti politique waaye teew fii en tant que jullit ndax jàngal nañ bokkoon na ci li amal moroom jullitam ci am mooy bu fi jógee na fekkee fu ñu koy defaree fu ñu koy ngi ko kon wax ji du gudd ndax jaru ko témoignage yi ci jot a jàll wane na dimension wu Ahmadou Makhtar Mbow wane na dimension wu étatique am ndax boo xam ne nekk nga député nekk nga ministre kenn waxatu la duy te servir nga sa réew waaye témoignage yi wane na dimension scientifique ak intellectuelle am wane na it dimension panafricaine am même su dee waxuñu ko ci témoignage yi ndax bokk na ci membre fondateur taxawaloon la fédération des étudiants africains noirs en France te loolu def ci woon xàjj seen lépp lu koy woon africain rek wane na woon ko ci kuréel boobu wane na dimension internationale ndax jiite na kuréel boo xam ne kuréelu àdduna wërgël këpp la bokk na li gën a may fit Sénégalais yi ba tey organisation internationale boo jël dafa mel ni Sénégalais yi ñoo ko ëpp moom li mu doon précurseur damay wax précurseur précoce bokk na ci li gën a may fit Sénégalais yi kon jëmm ju mel noonu fi jógee perte bu rëy ci Sénégal perte bu rëy la ci Afrique perte bu rëy la ci àdduna waaye nag yàlla mooy borom dogal te may na ko loo xam ne ñu ngi ñaan ñun ñëpp mbay ñëw ndax dund na ci lim ci ay at loo xam ne néew na fii ci senegal nit dund ko waaye teewul yàlla saa su ne tey rek tey saa su ne jeex na rek jeex na ñu war a dénkante ñun ñëpp bàyyi di jiital jaboot bi di dénk muñ ndax xadis bi mu wax mooy bu nit bàyyi bàyyi ko mënaloo ko koo dara doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan doo ko dëkkal waaye ñaara bi des mooy muñ ak ñaanal kon ñuy dénkante ñun ñëpp muñ di ko ñaanal yàlla woyofal suuf ci kaw yàlla boole ko ci borom këru ak barsax yu yaatu yi mu jàkkaarloo këram ci aljana yàlla yàggal sarax bi suñu loxo ñun ñëpp yéen koo fayal yàlla may ñu ñu teg suñu tànk fi mu ko tegoon moom di daaneel ci wax ni ku mel nii dañ ko war a joxe référence au Sénégal et particulièrement à la jeunesse sénégalaise ndax koo xam ne mu demee ba ñëpp jàpp ni war naa moom boppam war naa noppalu ndax waxuma la retraite waaye weesu na largement large la retraite mu continuer ci combat politique dans le sens noble du terme mooy du ko jënguur du fal ma waaye lépp luy xalaat buy defar Sénégal buy rafetal luy gis kenn moo ko jiitu loolu dafa wane désintéressement don de soi pour la patrie ñu war ko jox exemple xale yëpp dama fas yéene woon tënk rek ndax jàpp naa ni euh, buñ ko waxee nii lëmbe na lépp waaye protocole baa ngi insister pour ñu tënk ci kàllaama tubaab ma essayé ko tënk ci ñett ci ñaari ñaari civil yi euh, nous sommes là pour accompagner et prier pour euh, le repos de l'âme d'un des plus illustres fils du Sénégal en l'occurrence notre papa notre ami et notre modèle euh, Amadou Mahtar Mbow. Je suis là pour représenter son excellence monsieur le président ah, de la République qui comme vous le savez se trouve pays il aurait été là lui-même si cet événement l'avait trouvé à Dakar mais il m'a chargé de transmettre ses sincères condoléances à la famille Florey et surtout de les informer son intention de venir présenter ses à la maison mortuaire dès son retour à la gare. Nous venons de perdre un du Sénégal et de l'Afrique, un des plus dignes fils du Sénégal et de l'Afrique, un exemple à tout point de vue, qui a donné, qui a consacré toute sa vie à se battre pour la construction d'un modèle aussi bien de développement qu'un modèle sociétal pour son pays, le Sénégal, mais qui s'est battu toute sa vie pour faire rayonner l'image du Sénégal à travers le monde. Et il a réussi à le faire en se hissant brillamment à la tête de l'institution qui est l'UNESCO et en devenant ainsi le premier Africain et le premier Sénégalais à diriger une institution internationale. C'est cet que nous avons perdu, c'est une grosse Nous ne pouvons que euh, nous plier à la volonté divine, formuler les prières les plus ardentes pour le repos de son âme, pour qu'il soit parmi ceux que Dieu, dans sa miséricorde, accueillit dans son paradis céleste, et nous associer à la famille pour partager la douleur qui est la vôtre, et surtout pour réitérer nos encouragements à subir cette épreuve qui découle de la volonté de Dieu mais à la, à avec stoïcisme, avec endurance et surtout beaucoup prier, énormément prier pour le repos de l'âme du défunt. Je vous remercie pour votre aimable attention. Yàlla mooy dimension bi di jóge ma teew bi nag ci ñeenti cër bi bi ci ëpp solo mooy teewal bi son excellence monsieur le président de la république démb la ne ma naa ko ñëw teewal fii naa xam lu fan ci décidé ci wàllu organisation mu ñëw teewal ko fii ak seen famille ñoom ñëpp ñoo toog ñooñu ñëpp doo fi toog ñu ma waxoon ci turu famille bi suñu seede dañu ko lislaam duggee ah seede bi nag ñaari yëf la wéeru li ci wax di wax terroir li Diop di wax universalité maanaam fa nga juddoo fa nga màggee fa nga dëkk ak li la addina bi di xoolee ak di seeni moo tax waa Louga daan nga yëg ci lu bëri dañuy dem naa leen seede seede bi nag ñetti bopp la ñuy bu njëkk bi mu ma ko waxee mooy terroir loolu nga xam ko fu ko tudd fa mu jógee fa mu juddoo fa mu màggee ak fa mu bokk loolu da ko fonk tamit itam fonk loolu te gis ko te dund ko donc universalité bi nga xam ne moo ko maanaam ñu ubbee boppam ci adduna bi di jox di wax ouverture ah bëgg ñëpp booloo tasoo ba pare itam yem